mbokk yi asalaamaaleykum seen mbokk docteur Mansour Diouf moo dikk tey pour euh, waxtaan ak yéen ci mbirum euh, ubbi gi ñu ubbi jàkk yi ci contexte bi ñu toll nii ci wàllu feebaru coronavirus bi euh, ñun nag bu dee dañoo nekk ay docteur yàlla baaxee ñu xam-xam dafay nekk farata ci ñun ñuy mën a jël xam-xam boobu di ci di ci di ci ñaax suñu mbokk yi ak lépp loo xam ne du leen nar indi indil loraange la ñu mën leen koo wax parce que loolu dafay nekk suñu responsabilité euh, ñu ñëpp xam nañ ne euh, docteur moom charia l'islam daf ko may mu gis ci wàllu loo xamante ni sax ponk la ci diine ji maanaam pilier la li ñuy wax xawaayidul islam lu demee ni ki woor weeru koor walla aj màkk ci ki ko mën docteur boobu noonu sariya may na ko ci wàllu xam-xam bi nga xam ne moom la ko suñu borom baaxee mu sukkandiku ci bàyyiloo nit ki woor bàyyiloo ko aj màkk te donte ñaar yooyu noonu ay pilier la ci wàllu diine l'islam kon ngeen xam ne kàddu gi docteur di yëkkati mu lalu ci xam-xam bi ko suñ borom may charia daf ko jox gëdd bu mat sëkk te loolu li ko waral mooy ne Euh, kiy wax te li muy wax sukkandiku ci xam-xam boo xam ne xam-xam bu bàyyi ko suñu borom la suñu borom moo ko baaxe dañuy jàpp ni loolu muy wax suñu borom mooy wax di ko jaarale ci làmmiñam donc foofu lañ koy ci maqaam boobu lañ koy tege moo tax euh, ñu wax leen ni par exemple ñi nga xamante ni dañoo am âge yu mag ñi nga xam ne dañoo am soixante ans jëm kaw képp koo ci xam ne da nga am juróom benn fukki at ak lu ko ëpp seetlu nañ ni ñi nga xamante ne ni ci catégorie âge boobu noonu feebar bi tëral na leen ba mu yóbbu leen euh, réanimation moo xam ñuy wax kër Sowetas foofu ci Sénégal ba ñu defal leen sampal leen appareil boobu nga xam ne moo leen dimbali pour noyyi li ñuy wax respirateur ña jaar foofu yëpp maar de taal yi dañoo faatu dañoo faatu amu ci kenn koo xamante ni ba fii may wax yow nii ñu ne la. dem na faj nañ ko ba mu wér ba ñu dindi machine ba ba mu dellu këram di dox doxiwaat ay soxlaam loolu am te buñ ko jëlee ci cadre monde bi yëpp tamit faatu yu bari yi li fi feebar bi faat yëpp bu ngeen ko seetee plus de quatre vingt pour cent yi dañoo am juróom fukki at juróom benn fukki at wala juróom benn fukki at ak juróom jëm kaw donc kitrage boobu donc loolu li muy wane mooy ni ñooñu ñoom la feebar bi gën a yàpp ñoom la feebar bi gën a sonal ñoom la feebar bi di gën a faat mu lu bu gën a faat ñaareel ba mesure yi ma dégg nii moom la ñu wax bëggu koo teg ci buntu jàkka yi dégg nii dañuy jël sa température ak dañuy sol masque ñu def mesure distanciation ak euh, raxas say loxo bu nekkee ci biir jàkka ji di def ay un mètre wala yóbbal lu ko ëpp ci biir sàppe yi ak yu demee noonu léegi ma leen xamal ne sànq comme ni ma ko waxee woon docteur tax na nga bàyyi farata te dara fekku la ci dem jàkka nag dem julle ji ci jàkka ji dégg ngeen boroom xam-xam yëpp fàttali nañ ko ni du farata donc bu la docteur pour sàmm sa wér yaram sàmm sa bakkan na tax bul dem ci jàkka ji loo xam du farata donc war nga koo mën a déglu di tubaab bi wax qui peut le plus peut le moins ki ba tax nga bàyyi farata yaa ngi dégg bu sukkandikoo ci li mu sukkandiku ba bàyyi loola sukkandiku ci loolu pour bàyyi loo xam ne du faratu sunna la war nga koo mën a bàyyi te nag maa ngi ñaan suñ mbokk ustaas yi nañ ma gàggante bu fekkee dama dama juum bu ma juumulee daal yàlla suñ borom dafa wax ne wala tulxu bi aydikum illa taxlukati maanaam bu leen soobu ci seen coobaray bopp ci loo xam ne xam ngeen ko ngeen soobu ci loo xam ne da leen di indil loraange ba seen bakkan gi ca des voilà ne vous précipitez pas par vos propres mais jusqu'à votre destruction te feebar bii nii donc gis ngeen ni muy def noonu ci wàllu tranche d'âge boobu noonu donc ñi nga xamante ni nii dañoo am juróom benn fukki ak jëm kaw ngeen déglu ma bu baax parce que comme ça ëllëg si biir kenn du ni xawma ko woon te gis ngeen ñii faatu boobu ba léegi Sénégal ci wàllu feebar bi bu ngeen ko xaymaa ngeen seetlu bu baax ñi faatu ñan la ñi am juróom benn fukki at jëm kaw la ñi ci faatoo kus néew te am âge bu gën a yées loolu dafa fekk ñu am feebar bu lalu ci seen yaram donte moo xam xamoon nañ ko wala xamuñu ko woon loolu moo indi seenu faatu mais feebar bi ñu muy gën a faat gën leen a sonal mooy mag ñi boole ci nag mag ñi foofu noonu mag moo fa gis te amul feebaru tension wala amul feebaru cardiaque wala amul feebaru noy wala amul feebaru roño wala amul jabet wala walla wala wala defe naa dañ koy wàññi donc boo boolee nag mag am yenn feebar yooyu ma lim nag yow na la wóor ni virus bi moom ay la yéwén boo dajeeg moom maar de taal yi cent pour cent moom de probabilité mooy mu faat la te nag nit du dugg ci loo xamante ni nii jullit en tout cas comme ni ma ko fàttalee sànq ci aaya bi du dugg ci loo xamante ci soobare boppam da koy jural loraange ba bakkanam di ca mën a des kon li ñuy wax principe de précaution principe de précaution mooy loolu température boobu ñuy jël ci buntu jàkka yi ne leen wóor ni ña fay dugg di ko wàlle seen yaram du tàng ma wax leen ko amul benn màndarga feebar bi nuñ ko seen jë amul benn mandargay feebar ba fii ñu toll nii la fay lawal feebar bi moo tax deux mille cas yooyu ñu leen di wax ni moom ngeen am jàpp leen ni peut-être ku ku ku moytu sax romb ngeen million de cas di dem ña ko fay yor di ko wàllee ña nga fa donc boo bokkee nag ci ñi nga xam ne dañ leen tuddee groupe vulnérable ñi nga xam ne dañoo fragile li nga xam ne nga war a def mooy nga moytu parce que moytu gi ñuy wax noonu mesure yooyu ñuy wax yëpp ci yéen lañ ko gën a séntu ci yéen sax lañ war a gën a ñaax ngeen seen donc may ñaan sama mbokk yi képp ku ci am sa maam ci kër ga na nga jàpp ni yow yaa ko war a protéger sa bopp bul xaar ma sàmba ko def wala ma dembati di ko def protéger ko sa bopp ñaax ko ci mesures barrières yi mu koy respecté nay julli ci kër gi yaa ngi dégg en tout cas nii nii moom jamono bi ñu toll nii moom ak ni virus bi di circuler moom dem julli ji ci jàkka ja moom loolu moom yaay jël say risque bopp boobaa nag comme léegi nag xam nañ ko wax nañ leen ko ñun ñi nga xamante ni nag ñun yàlla moo ñu jox responsabilité boobu xam-xam bi mu ñu jox ñu war koo wax nit ñi pour li leen ciy jëriñ ñu wax ko lillahi wa suuli raxas ci suñuy loxo bu ko defee ñu ni ñun suñu jaan wàcc na matale nañ jottali nañ li ñu waroon a jottali ma baamtuwaat ko ki nga xamante ni nag charia may na ko bu la waxee mu mën laa bàyyiloo ponk lislaam mën laa bàyyiloo faratay lislaam loo xamante ni ni ponk la ci diine ji moo xam aj màkka la wala muy koor docteur moo la ko mën a bàyyiloo te dara ci la fekk bu la walee bàyyiloo nag dugg ci jàkka ji te loolu dem jullee ji jàkka ji du farata en tout cas du ponk ci lislaam man day li ma jotoon a jàng moom mooy buñ lay limal xawaayidul islaam yi ponk lislaam yi ba ñëw ba ni la wa iqaami salaati julli julli juróom gisuma ñu dolli ci ni jullee ko ca jàkka ja ah man day waaw bon kon daal principe de précaution waaw léegi nag ñun matale nañ jottali nañ wax nañ leen li nga xamante ni moom lañ ci xalaat léegi nag ñi nga xamante ni ñoo yor seeni maam ci kër yi jàpp leen seen maam yi ci kër yi bu leen leen bàyyi ñu dem julli ji ci jàkka ji en tout cas jamono ji buñ demee nag ba jëmmi jamono ba nga xamante ni ni risque bi teggeeku na ni ñu ñëwee ni wax leen ko noonu lañu ñëwaat waxaat leen ko waaw bu ko defee bu boobaa ku bëgg a julli ji nga dem julli ji mais jamono bi ñu toll nii daal en tout cas mag ñooñu moom man ñooñu laay gën a waxal ñooñu moom li may wax ni loo xam dafa sukkandiku moom ci xam-xam bu wér mooy ni buñ fa demee loraange mën na lañ cee jur mu ngi noonu donc ñoom pour l'instant nañu toog jullee ci seen kër te gën a respecter mesure bariere yi bu ko defee suñu borom musal leen waaw lii daal lañ ñu woon mënuñu koo ñàkk yëkkati euh, ci problème boobu te suñu responsabilité en tant que médecin pour ñu ñëw wax ci li nga xamante ni nii moom moo ci dëppoo ak wàllu médecine waaw di ñaan yàlla ñaan yàlla may topp dégg ak topp ak jëfe yàlla aar ñu aar leen aar mboolem julliti aar mboolem Sénégal ak képp koo xamante ni yaa ngi ci àddina bi feebar bi gaaw jóge fii ba lépp delluwaat ci normal bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen jëf